xew-xew yi. d'accord dinaa si déglu wu ci loolu. Hmm. pour mën a jox Sénégalais bi lu mu soxla woon rek. léegi ah. ma lay laaj. Mhm. ñu bëri dañoo ne. Mhm. ku liggéey jàll nga parrainage ku liggéeyul jàlloo parrainage. waaw kon yow liggéeyu. waaw xam nga li ma la mën a wax mooy man ni may àttee sama bopp. man ni may attee sama bopp moo gën a metti fuuf ni ma sama nawle di attee mm-hmm. loolu li ma bëgg wax foofu xam nga mm-hmm, mooy man Abdoul Aziz am na lu ma yàlla bind lu ma xam mm-hmm. bari naa sikk lool waaye am na mais ngëneel yi ma yàlla def ci man xam naa ko loo bari bari sikk loo fi yées yées loo tuskare tuskare mënoo réere ngëneel bi nekk ci yow yàlla def ko ci bokk na ci li ma jàpp ni ngëneel la bu yàlla def ci man mooy leen rek lay bañ ci àddina mooy may yóotu dara gis ni ñàkk caa jot ga dara waral lu ko lu dul la mu laajoon man maa ko deful mën naa la giñal ci alxuraan parrainage bi ma duggoon mm-hmm. la mu laaj lépp man Abdoul Aziz jox naa ko ko dem nga collecté ko dem naa collecté ko la ca war pour collecté ko def naa ko wàccoog naag àqu parrainage sama kemtalaayu kattan waaye wàccoog àqu parrainage sa kemtalaayu kattan du tax nga am li nga bëgg lu tax ndax Abdoul Aziz dong Abdoul Aziz Diop dong hmm. di benn mbindeef bu ne man mën naa ko doxal sama bopp ba lépp sotti ma def ko sama poche dem yebbi ko conseil constitutionnel damay nax sama bopp fokk ma ànd ceek samay nawle yu góor yu jigéen mag ak ndaw yàlla nañu am ngëm-ngëm bi taxoon nga tàllal loxo ñu nangu ko hmm. li tumuraanke ci réew mi mooy ngëm-ngëm hmm. mën naa la ko wax ci parrainage du day amu ci kenn koo koy junj lu dul la tegal nangam sama loxo muy benn waaye teewul ña doon gor bëgg lu baax xam lu baax yéene yiw seen réew xam ni bu ko taxawul du ñu jéggaane feneen réew bu tane seen bos ñoo ña am na ñu ci volontaire ñu tudd leen ay bénévole yoo xam ni ku ci mel ni Demba Diop di président des jeunes élus dans le département de Kaolack ku euh, Ibrahim de enseignant euh, euh... ku ci euh, Lamine Guèye pas Patte Nyonya, de ay bénévole lañ yo xamni ni lañ ma jox ci parrainage ñeneen yi nga dama sama sama loxo ñu ñu ñu sama loxo ñu ci ki ma jàppoon ni moo ci ëpp solo mm. mi ngi tudd ci Kouyaté ci mi ngi bokk ci organisation bu ñu tuddee horizon 2024 jàpp naa ni ci ki ma booleeg moom dañu am woy ci wàllu parrainage waaye ci bu ma déggee bu ma bu fekkee ni mi ngi seetaan mi ngi may dégg su fekkee ni seetaanuñu nous ñu une rediffusion info qui bi émission bi dana ko dana ko dana ko sétane mom rek la soxlo comme cédé ci limay wax ak sama borom bi may dig moy le 12 octobre 2023 ci bir parrainage bi auto bi jox ko ko mu ñaar fukki ci la dugg man ak mom jëm Touba ci ben serigne dara bu mak te booba bokk na ci li ñu fa yóbbu woon parrainage mhm. euh, Cey Kouyaté moom moo wax ci làmmañam ni Abdoul Aziz bi sëriñ Daara baa ngi dégg moom dama tudd turam mhm. waaye Serigne Daara bi mën na am moom itam muy dégg su waxtaan bi mën na ko firndeel le 12 octobre mu ni Serigne Daara bi man ci Kouyaté ak président bi nekk ci bopp horizon 2024 suñu ànd ak Abdoul Aziz Diop leen rek ko ko waral moy xam nañu jaar-jaaram te itam def lu ku lu ku dafa dafa tekki ndombal tànkam delloo ko président tekki ndombal tànk ci parti ba mu nekkoon ak coalition bu mu nekkoon sos li mu tuddee pacte institutionnel sunu toogaayu ak sunu toogaayu mi il faut que ñu seetaat toogaay bi mu ni ki def loolu moom mooy secrétaire général horizon 2024 Abdoul Aziz bi def loolu ànd ñoog moom ndax alal jum ñuy jox wala jumtuwaay bu keneen amul bu ñuy teg suñu loxo ngëm-ngëmam moom nu booleek moom kon may tontuwaale ñi wax ni man dama tëdd sama kër bàyyi horizon 2024 ñu defal ma sama liggéey sañu ma loolu seen tànk sama tànk ñu am fu ñu ma féete ma féete leen feneen ci territoire bi ñu séddoo ko boole koog bénévole yi ñu am amoon yaakaar ni buñ ca àggee dès le 1er décembre bu ñu defee sunu xayma danañ mën j'all jàll continuer bokk ci yi le 23 novembre 2023 la gëj a teg bët ci Kouyaté wala dégg ko ak président horizon 2024 te la ma boole ak ñoom du projet marche commerçant Madame du naa génne alal jox leen jox leen ay jumtuwaay yu amul fenn la ma boole woon la doon la doon dëgg dëgg suñu mooy Sénégal toogaayu kuréel yi ak pénc yi jot na ñu setat ñu rafetal ko mooy li Aliou Sondoor wax sànq muy loo xam ne nii gis nga loolu bu ñu ci taxawul ba Sénégal yëpp rafetlu ni pénc yi ak kuréel yi tooge li tubaab tuddee confiance maanaam wóolante ci biir réew mi du dellu si ci réew mi mhm. te bu dellu siwul ci réew mi réew mu ab Doudou Coulibaly wóolu ceekwaate yooyu foo mujjee ak ñoom li foo mujjee moom mooy fii ma wax ak ñoom mënuma leen jot téléphone hmm? mënuma leen a bind ñu tontu ma waaye ñu ngi ci réew mi di tababalu lu bëri ci say parrainage ñoom ñoo ko yor li ëpp ci samay parrainage ñoom ñoo ko yoroon <laughs> maanaam foofu lañ ma waroon a féete plus bénévole yi ak man li nga xam ne ni maa ko dagaanal sama bopp ndax tudduma di xoole lenn laa gën a bañ ci àddina mooy may yuutu dara jotuma ca ndax la ca war defuma ko dama la ci jox benn firnde pour arrêt pour ñu continuer waxtaan bi ci beneen anam mm-hmm.